بسم الإله فن الدار يالله سفي بقاء به لي فيك يالله بسم الإله فن الدار يالله سفي بقاء به لي فيك يالله bismillahi finin addaara yàlla safi baqa abihim li fika yàlla yaa man lahul amru yaa man laa sharika lahu auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli barke borom Tuubaa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloo waat ñun dañu seetaan ci seen émission bi ñu dëppee ëttu murit amal alxames ju bu vingt heures tegalee fanweeri minute fii ci seen télévision Lamfal TV euh, ñuy am mbégte di àndaat yéen ci beneen jataay ci waneen waar ci waari Cheikhul Khadim yi euh, di jaajëfal bu baax a baax euh, bokk yi nga xam ne ñu di waa daara yi bu Tarqiyyah ci njiitul Serigne Youssou Diop waaye Serigne Lamine Diop àndoon ak ñun ci émission bi weesu ci waajtaay yi nga xam ne wala liggéey yi nga xam ne moom la ñuy def ànd koog Cheikh Mamadou Mountakha ci weeru koor wi. ñu jaajëfal euh, mbooleem respectateur yi ne ci biir réew mi ak bitim réew mm, di ñaan yàlla ñaan yi ñaan yàlla ñu yàlla boole dajale ci ak ngërëmul seriñ bi euh, tey jii ñu amaan mbégte ànd ak kenn ci taalibey sëriñ Tuubaa yi waaye kenn ci njabootu Cheikhul Xadim gi di Sërif Fanta Madi ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ibnu Cheikhuna Ahmadul Xadim ñu siyaare ak a ñaanal jëwriñu yoon wi di sëriñ Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa borom mbég mi di borom yitte e, di ku bëgg xam-xam te di ko dundal yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko te ñu ànd koog moom. E, ngir njëkkante ak waxtu wi tey jii ñu fas yéene ànd ak sëriñ Sa sëriñ Fanta Madi dalal ko ci suñu émission bii di ëttu murit xam naa mu koy bàyyi mu nuyoo ak bokki bi yi sargalanteeg ñoom ci weeru koor wi su ko defee nag ñu ñëw ak moom ci. li nga xam ne moo ñu tax a jóg tey jii ci jataay bi nga xam ne télévision Lamp Fall doxantu na ñëw ci këram ngir seq ko ak moom. Euh, bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala wa rahmatullahi wa barakaatu suñ Fallou Galas du lay fay. Euh, di la ndokkeel di ndokkeel mbooleem mbokk yi fi teew ak ñi ñu fi teew ñu te amoon yéene teew fi weer wii nu nekk muy weeru koor di ñaan mbooleem luñ ci jaamu suñ borom nangu ko euh, tan bokk ko teewaat na ngeen déwén kenn bañ a manqué ci njiitul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy sëriñ Touba euh, te taxawaayam def taxawaay bu mat sëkk te rafet lool euh, bisimilah. jërëjëf kon sëñ bi ginnaaw bu ñu siyaaree sa jëwriñ di boroom ëtt bi. di sëriñ Abo Baraka ibnu Cheikh Mamadul Fadal ak mboolem njabootu sëñ Fallou gépp eh, ñëwoon nañ tey bëggoon a xam sëñ Sërif Fanta Madi eh, ñu bari dañ koy dégg waaye ginnaaw bu mu doonee doomi Cheikh Mamadul faadal jaar ci fi mu war a jaar ci wàllu sàkku xam-xam ba ñëw nag fas yéene liggéeyal sëriñ Touba ci dëkk bi sëñ Abdou Lahad nee na woon kenn ku ne matt yi ne ci àll bi mu ne su koo boole waaye kenn ku ne da ngay fexe ba say wi nga am ci ak matt matt googu nag fu ñu séen nañ la séen ak moom ba bu ëllëgee buñ sampee say wes ak matt mën ci biir mu mel ne sëriñ sa fàdda ma di yittem jëpp mooy dajale wala boog mandargaal jeexital yi sëriñ Tuubaa yi nga xam ne daanañ ko dégg lu bari ci gone yi sax mu réer leen ba bu ñu tëdd tuddee ci cosaan ñu naan sëriñ Tuubaa ci ay néegi ràng la daan nekk ay jaafira la daan yor ay maxtumi Eh, yu mel noonu réer na ci xale yi jën ban objectif la Serigne Serif Fantama di am bu jublu foofu nga xam ne loolu moom buñ ko doon firi ci wàllu làkku tubaab mooy ab musée te nit ñu bari xamuñu ko waaye mooy dajale cosaan yi nga xamante ni bi moom sa maam amoon. di dellu si ginnaaw bu ñu jiitalee Cheikh Mouhamed Mountakha ci eh, ak cant ak nuyoo ni ko waxee di ci teg eh, Serigne Abo mi nga xam ne mooy nekk ci buntu kër Serigne fal tey. ak mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gépp Euh, ni nga ko laajee nag xalaat bi lu yàgg yàgg la euh, xam naa war naa mat ñaar fukki at euh, cosaan li itam mooy boo seetee adduna bi ñi nga xam ne sax li yor fii rek la yem tey rek la yem dañ ko fonk muy bu demee ci naar yeeg tubaab yeeg ñeneen kon gën nun ñi nga xam ne li yor day njëriñul tey ak ëllëg te mooy Sëñ Tuubaa mu bàyyi fi nag ndono lu mat sëkk ndono loo xam ne njëriñ la feese ci biir ak ci biti te itam suñ borom nu am ci loo xam ne làmb tuun ko danoo euh, dañuy sof ndax damay faral di wax ne sëñ Abdou Lahad danoo dimbalee bi nga xamee ne kërug téere yi noppi na donte kër ga ay téere ko tax a jógit def na fa loo xam ne day tolloog lii nuy fexe mi matxaf wala musée te mooy mboole dajale mbooleem li nga xam ne mënoon na caa jot ci jamono ci barkeelu ma nga fa ba ba fii mu ne ma jàpp ne loolu ab joxañ la <clears throat> euh, mu mel ni kon da doon wax ak nun nenu kat fii ay téere ko tax a jóg waaye nag nañ def yitte ci wutal yi demee ne yooyu yële barab boo xam ne barab boo xam lay doon muy lu mel ni li ñuy fexe tey muy benn ñaareel bi yonente bi sallallahu alayhi wa defal nañ ko ko ca Turquie ak ca foo xam ne boo demee tey eh, jëfandikukaay yi nga xam ne moom la yoroon tamit di barkeelu yëpp ña ngi koy saytu ba fii mu ne nañ ca jote woon dara sikaatu ci ginnaaw bi ngir saytu guñ ko saytu ak teg guñ ko teg ci yoon wañ ko war a teg ci wàllu xam-xam ñu ne nag seen Touba mooy xaadimul rasul ñu ne ku dem Madina day da war a xam ne fa la rasulullahi nekk waaye ku ñëw Touba war a xam ni fii la xadimu rasulillahi nekk ci loolu lañ amoon xalaat bi di ci dox mat na ñaar fukki at ndigal liñ ci am itam ma nga tàmbale ci Cheikh Salih Mbacké radiyallahu anhu Euh, yàlla dafa dogal nag liñ ci siiwal ci ndigal egguñu woon ca moom ndax jamono yooya euh, mook sëñ baara ñoom ñëpp euh, moo doon amuñu woon màndargam ne am joxe na ci ndigal te dañoo bëgg fii nu jëm nii luñ ciy def man koo màndargaal wax fiñ ko teg mm-hmm. moo tax ndigal liñ tàmbalee siiwal mooy ndigal li tàmbalee ci sëñ Sidi Muxtaar ak sëñ Muntaxa mi fi nekk tey nga xam ne ñu ngi fa njëkk dem ci atum 2015 boo ko seetee war na ma juróom-ñaari at boobu sax sëñ Muntaxa yàlla dogal na doonagut sëñ Tuubaa ñu dem fa waxtaan ceeg moom mu rafetlu ko lool mu jóge fa keroog dem kër Ngànna fekk fa sëñ Sidi Muxtaar wax ko ko mu sawar loo loonu ci lool jox ci ndigal ne nañ ci góorgóorlu bi yàlla dogalee ginnaawam itam ba daaw ñu delluwaat sëñ Muntaxa mu jaar fam jaaroon moom itam joxewaat ci ndigal ndax murit daa sëñ te def loo xam ne li laaju seen digalul sëriñ Tuubaa am ko ñu xam ne kon euh, noonu la demee lii nuru laaj ndigal itam te am ñu gis ne am na ñuy wax ne sax murid du laaj ndigal day toog bañ jox ko ko waaye man sëñ Saliou damaa dimbalee ci ci loolu loo xam ne mën naa koo wax fii mu leer mooy bi nga xamee ne sëñ Touba ñibbisi na jóge Gabon 1902 ba 2002 dafa matoon téeméeri at ma ñëw ne ko man de dama amoon yéene bis bi nga xamee ne sëñ bi ñibbisi na ci muy téeméeri at ren ñu màggal ko def ci ay taxawaay mu ne dënd boom yàgg mu ne ah sala loolu de lu ko mat la ne ma leen rek laa bëgg ñu démbalee ma ko na ndax damay dégg ñu ne dañuy wax ci rajo yi ak télé yi de di wax ne ci sama ndigal ma bëggoon nag loolu buñ ko buñ ko mënee bañuy wax ci lii moo ma gënal ndax yi fi sëriñ bi bàyyi woon muy sëñ Tuubaa ci ndigal kat dama ca fasu déenee yokk dara lañ ci xamoon mooy lu demee ne màggal gàmm ak yéen yemel na ñoom yi ci des nag luñ ma ci wax tamit lu war a ne danaa ci ànd lii nga wax nag ànd naa ci te maa ngi ñaan ngeen daje ci ngërëmul sëriñ bi ak ndimbalam foofee laa teg ne kon ndeke lu ko mat loo jàpp ne lu ko mat la jër te bañ a gaaral ki fii sëñ Tuubaa bu ca àndee nga jàppee ko lu war a def loolu moo tax bi xalaat bi nekkee ci man moo wax ko ñii ma la wax tàmbale ko Cheikh Salih Mbacké radiyallahu anhu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye nag siiw gi ak fés gi nga xam ne mënees na ko mandargaal mi ngi tàmbalee ci sëñ Sidi Muxtaar ak sëñ mu mi fi nekk tey ñu xam ne kon am nañ ci ndigalul sëñ Tuubaa looloo tax ñu ñeme ci xam fiñ ci jëmit lool damay wax ne eh, dafa kër gi daa mel ne lu sotti ba ma dugg ci biir di ko di ko di ko di ko di ko visité noonu la xaw a mel ci man loo xam ne dama ci xam fi ma ci jëm ñeme ci xam li mu wundu xam eh, la muy jariñ ëllëg mm-hmm. ni nga ko waxee léegi eh, barkeelu yi dëgg la waaye barkeelu yi itam genn wet la ci euh, li muy wund kon mooy jàngataat yoonu murit ca njëlbéen nga ba bis bis bisu bi mm-hmm. sëriñ bi lan la nekke woon mag ñi àndaloon nañ nan la ànde woon ak ñoom ca lañ ca war a wane ta sañ koo wane nañ ñëwee ci moom yañ seqoon ak moom yañ yañ waxante yañ bindante ak nag barkeelu yooyu bàyyi ko ci sëriñ bi ci moom ak ak njabootam ak mbooleem lu mu jaboote ci wàllu pas-pas muy cheikh si ak taalibe mag yi lii daal la kër gi di wund maanaam daal nettaliwaat yoon bi ci anam goo xam dañ koy tënk fi benn barab ba koy gëstooti bu ñëwee du sonn yàlla defal na tawféex itam bi nga xam ne daje na ak yittewoo gi xam ne sëñ Muntaxa te loolu mosu fee jóg ndax jàngukaay bi daa bokkoon ci pàggutee fi sëñ bi ñaanoon binduloo ko sëñ Mbàkke Buso te yooyee bari wutoon wax nañ ne màggalu Tuubaa ca la jumaay Tuubaa ca la ak jàng boo xam ne fu leen la nit di bàyyi ko di fa ñëw di sàkk xam-xam yàlla dogal loolu tamit mosu fee jóg ndax xam ngeen jumaa ji bi mu àggee 1963 daarul maarif al islamiyya nga fa ba tey Alaaji Mbàkke Jaxate jiite ko yàlla na fi gën a yàgg te wér sëñ Abdou Lahad bi mu ñëwee sof ci mook ñi ko ñi ko muy muy muy muy université bi sëñ Saaliwu def ca wàllam sëñ Abdou Xaadir def ca wàllam ba nii ak sëñ Sidi Muxtaar ak sëñ ñëpp ba nii sëñ Muntaxaa ñëwee nag jël ko jëlin wu yees waaw dëppoog la sëñ bi ñaanoon ca matlabul fawzayni wa waj'alhu da'ban maskana taalim wa mawdi'a al fikrati wa tafahum ñu jàpp ne maskana taalum mooy jàngukaay mawda al fikrat wa tafahum nag mooy lu demee ne li ñu xalaate muy fikra bu yees bi te mooy matxaf boo xam ne dañ fay xalaate ak di fa jàngataat sëñ bi jàngeen boo xam ne dañ ko mën a gën a dégg loolu loolu mooy ci sama xalaat mawda al fikrat wa kon mu mel ne wàccuñu yoon wi incha allah te tey day mottalente ak jàngukaay bi ndax li li ko li koy def mooy euh, ñi fay jàng bu fekkee ne am na koo xam ne bëgg naa def gëstu ci yoonu mu ni ñu ko bëgg defee te incha allah noonu lay demee bu fa duggee mbooleem lu mu soxlaa xam ci yoon wi da koy xam te day ubbi yeneen polanteer damay wax ne am na gëstukat yoo xam ne fi mu ne am na ay mawaadi wala ay ay ay ay matières yoo xam ne seen xel dajagu ko mm-hmm. waaye bu bu noppi woon tey bañ mandargaal ko ku fa dugg ci ñoom mën na faa génnee ballukaay boo xam ne bu ko toppee mën na caa def thèse wala mu def ca doctorat muy doon loo xam ne xam-xam lay lay doon bu yokk ci yoon wi mm-hmm. mën caa ànd loo xam des na ko mën a jëriñoo kon daal mbir la moo xam ne peeg ko mm-hmm. dina jafe lool euh, li ma xam daal mooy Euh, dana ubbi ay bunte ki palanteer yoo xam ne ba faw day dox ci wàllu xam-xam ci wàllu gën a xam sëñ Tuubaa ndax loolu rek mooy mooy lu ñuy jariñ tegal rek euh, jërëjëf sëñ Serif euh, jërëjëf mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñoom dañu seetaan day mel ne sëñ bi ubbi na bunt boo xam ne dana gën a leeral xeli nit ñi ci fi nga xam ne fi la jëm ndax damay toujours ne boroom xalaat su xalaatee ne maa ngi bëgg a def nangam li fekk xalaat booba appliqué ko nit ki duñ mën a xam xalaat bi ndax du ko mën a toj carrément ndax faaw faaw mu ko waaye mel na ne ci biir say wax dégg naa ci ne ndakate mise boobu buñ ko defaroon ba àggal tey jii soo bëggoon a xam lan mooy daara yi terbiye ci yoon wi boo fa duggee da nga mën a tegtaloo mag ñi nga daan dégg ci yoon wi nga xam ne gisatoo leen da nga ne seeni nataal danañ fa mën a ne ñu mën laa jàngal ca nit kooka kan mooy Cheikh Ibrahima Fall lan la nekk woon kan mooy sëñ Daaru Assane Ndiaye kër sëñ Massamba Diop Sam da mel ne yooyu da koy dégg waaye ñu ngi dégg ay barab yu mel ne ay Gabon ak gànnaar ak kërug njaareem gaak yu mel noonu dafa mel ne réer na ci yoon wi ndax loolu dana bokk ci programme musée bi ba nga xamante ne buñ fa ñëwee loolu dana ci mën a am. waaw sëñ loolu dëgg mooy liggéey bi sax waaye balaa ñoo dugg ci loolu sax ma ñëw ci loo xam ne fan yii laa dajeeg moom ci taalifi sëriñ bi mhm. muy loo xam ne daf noo dooleel ci ci xalaat bi mooy a way woo ne maa ngi ko gis ci xasida goo xam ne daf koo tënk ayatul kursi wala ayatal kursi muy bay bayit boo xam ne dafa wax dafa wax ne ihfaz mataaya wa ahli wal walad wadiatan indaka fi saadi samad mboolem li fi bàyyi ci ndono muy ay barkeelu yow sunu boroom te da caa teg ak njabootam mhm. waaye nag eh, eh, barkeelu yi la jiital mhm. kon ñor na ko mhm. yow sunu borom maa ngi lay ñaan nga dencal ma ko ci saat gi nekk ci asamadu mataaya moom mooy daa yeeg kayit yeeg gaal yeeg barkeel yu bàyyi ko ci moom kenn mënu ko firee neena nag kon dafa mel ne ñun ndeke noo ngi dox ci ndigal te yëgunu ko woon sax faf loolu bayitu Serigne Touba la kon daf ñuy dooleel ci xalaat bi ndeke lu ko mat la mm-hmm. boo ñëwee ci li nga laaj léegi nag te mooy barab yooyu barab yooyu bokk na ci euh, ci ci mission këru barkeelu yi ñu dekkalaat ko te manes naa xam na meloon mm-hmm. euh, ndax am na ci xam-xamu euh, yi ñuy jàng lu ñu tuddee archéologique ak leneen ak leneen nga xam ne manees naa gëstu ba xam kër gu mag kees yi na mu tëddee woon loolu du lu yomb lay doon incha allah gànnaar foofu sëñ bi nekkoon ñu dekkalaat ko gabon fa mu nekkoon te loolu yëpp mënees na ko mandargaal ci biir euh, matxaf bi ci ñaari fànn benn mënees na ko def ci ay film mënees na ko def it li ñuy wax miniature maanaam nga xam ne kër gu mag dañ koy indiwaat euh, liggéeyaat ko mu toll ne tapis bi nga xam da nga ñëw tiim ko lu ne nga xam fa mu nekkoon garab yaag kër yaag kër ndax dafa bis dafa dafa am bis te sëriñ bi ku ku yéeme la xam nga nim naan def nga xam ne ñu méngoo ñu ne leen di boole ay mbir eh, keroog damay waxtaan ak mbokk mu mu yéeme mu ne ma fi mu ne Afrique du Sud liggéey li fa xewoon nga xam ne moo la ñu wax muy xàjjale nit ñi mu ne ma loolu yéen a jaa ñaaw rek waaye bu bu seen yéene rafetoon moo daanaka moo li sëñ bi dafa yem. sëriñ bi nag lam ci jublu woon mooy lu wërta ànd day bañ a ànd. doo ngay tërbiyee fee lañ nekk ñee sàkk xam-xam yi nekk fee jigéen ñi nga xam ne seen mbir ñoo ñoo bokk seen mbir féete fële mag ñi féete fële <laughs> mu ne xalaat bu rafet rek moo moo ko wutaleeg apartheid li ñu tudd ñu tudde apartheid ñee dañ ko def ngir noteel ak xeeb ak mm. beddi konte mm. moom mu def ko ngir kenn ku ne mm. gis sa bopp am li ñuy wax épanouissement nga xam ne doo am lu lay gàllankoor ci sag nekk waaw yooyu nag eh, dafa war a dafa war di dox dañ ko war di roy nun ci suñu dundinu bis bu set bu fi mu ne waaw te fi mu ne daa mel ne mi ngi koy xew mi kees yooyu kees sangam kees sangam kees gu ne mu def fa la fa yàlla képp loolu mooy yéwénal dund ak adduna gi te dund ak adduna gi kat mëtt xeeb ndax fi la ñuy waajee yi nga xam ne mooy sax loolu la ñu sëriñ bi jàngal waaw ba tax na lu solo la fi mu ne fu mel ne Gabon xalaat nañ ne bu ñëwoon mën nañ faa def bërëb boo xam ne boo fa duggee da ngay mel ne yaa nga fa ba fa sëñ bi nekkoon hmm. ci wàllu ñuy wax son ak lumière maanaam nga xam ne dana am animation boo xam ne boo fa duggee da ngay mel ne yaa ngi lambarene wala yaa ngi eh, yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi Kabla Bisa wala feneen mm-hmm. nga xam ne nga xam ne mën nañoo indiwaat ba ci damay xam ni maanaam ñaar fukki waxtu yeeg ñeent ci bis bi mm-hmm. waxtu wu ne da ngay mën nañ laa indilaatal nam daan mel ba ci guddi gi mm-hmm. ba fa nga xam ne moom moom moom moom moom daal moo fa nekkoon salaire yi sax nañ daan nañ daan sabe guddi da koy dégg maanaam sëñ bi dan dul xeeb dara ci mbiram lu ne dañ koy barkeeloo ci moom ba tax na lu ci ne day mat a indiwaat ca lañ ca mën lépp ndax fi mu ne li lay xamal ne dundal gi am na solo mooy fi mu ne photo bii ñu photo Sëñ Tuubaa bi ñu am seetal bu fi kon kon àdduna tukki photo bi lu am solo la waaw bu ko defee nag bu weesoo loolu itam mbooleem doonale wax naa la ko ci njëlbéenu waxtaan bi ci wàllu bindin maanaam li ñuy wax calligraphie nga xam ne fi mu ne école euh, murid yoon wi da ci am ay madaris da ci am ay que sëñ Chouaïb boo gisee mbir mu fa jógee da nga koy xam léegi que sëñ Moussa Ali Maguette boo gisee lu fa jógee da nga koy xam léegi euh, kër sëñ jëmb Cissé ca Mesare noonu boo ko toppee du jeex euh, kër sëñ bu sa iliman nga xam ne lu ci nekk école la daa am ñoo xam ne ñi ca lañ royee ba ba fii mu ne loolaay dox loolu nag ñu fixé ko ci alal yoon bi la ko loolu tax man ma ne damay damay dama dama dama dama dama gàntu ba tëdd ca naaj wa mm-hmm. ñii wax ne euh, mbind mi dañ ko war a soppi def ko mbindum naar ngir ñi ne ca bitti mën koo xam déedéet te naari sax damay faral di wax ne boo ci doon jël mbind ko ci jël mbindam ndax ñoom bokkale wuñ sax nu ñuy bind kaami bu jógee Tunisie boo ko gisee léegi xam ko bu jógee Égypte boo ko gisee xam ko bu jógee Iran boo ko gisee léegi xam ko ban lañ ci jël mhm. kon bokkul ci fulla ak fayda mhm. li nga yor lépp nga ne baaxul damay jëgaani te yow li ngay jëgaani xamoo sax fu mu ne te sëriñ bi moom daa doy sëkk mat sëkk doy lépp mhm. yaakaar naa buñ ñemee ci moom waxuma lay di ko jariñoo noonu waaye war nañ koo mën a jaay bitim réew ñoom ñu di ko jariñoo ndax lu àddina sëpp war a jël bu weesoo wàllu mbind mi nga ñëw ci wàllum daaju xasida yi cos dañ koy topp ci cosaan bi fi mën xam nga am na ci ay maraaxil yoo xam ne lu yomb a xam la eh, maanaam bu dee njàngum kuréel mi waa kër sëñ Masamba ak ko noonu ak ak ya ca ya ca ca ya ca bi ndax am na ci xam ne day am ay coppiku yu ndaw yu ci am ginnaaw bi ba ci xisbu tarxiya am na lu ñu ci dugal lu bëree bëri loolu lépp ci moomeel gi la njàngum aw mi mën nga tàmbalee ci ku mel ne Cheikh Fall Xattaab ñoom ci ñi nga xam ne xëy na fekk nañ leen fi ñëw ci Cheikh Lo muy benn marxala ba ci daanaka mët sàmm boobu moom itam dafa jur ay dafa def ay dafa def ay ay waaw dafa jur dafa def ay eh, dafa def ay ay car car mu dafa ne garab la ko defee car ñu bari waaw noonu la tëddee loolu yëpp dañ ko war a jàng dañ ko war a xam lii rek mooy solo si mhm. baax sax ci xeeti col ay sëñ son bu ay Sabador ay Turki Njaareem waaw yooyu yooyu day day day waaw. yàlla yàlla may fanu gudd sa benn xalifa sëriñ Cheikh mu sëñ Saliou dañoo mas di wax mu ne ma défilé de mode da ngeen ko war a def ci seen télé yi. parce que tubaab yaa ngi défilé seeni modd mode. Mhm. di ñuy jàngal sunu njaboot col yu baaxul. da ngeen war di génnewaat nag. Mhm. Eh, ya mag ñi daan ñor eh, sol mhm. nga xam ne bu dee ay ay ay ay ay ay eh, série ya mag ñi daan woddoo ay série tappi ay série dënk ak yi demee doome noonu <laughs> andilaatal nag ay turki njaareem ay sabadoor ah. yooyu nag faw xale yi am fu koy fekk ba mën ko faa gis ah, mu mel ne kon eh, sëñ bi ñu ngi sant baax a baax li nga wax nii ci wàllu alxuraan ci wàllu mbind mi daf maa yóbbee ci Cheikh Abdoul Ahad bi fi buuru Màkka bi ñëw tam tam tam tam bindulu woon kaamilub alxuraan bu tedd boobu nga xam ne yaakaar naa ma juumut eh, sëriñ Abdul Karim la ko binduloo woon bi mu bindee kaamil bi jox ko Cheikh Abdoul Ahad bi mu ko joxee buuru Màkka bi mu yóbbaale ko ba mu demee ba àgg daf ko doon wërlu ci wete gi fan lañ bindee kaamil bu mel nii mu yónnee waat Sëñ Abdu na ko dama ko wérlu ci bibliothèque yi amuma ko mu ne ko nekk ci bibliothèque Cheikh Ahmed Bamba lañ ko bindee kon yaakaar naa ne wala menn mbind mu ko gën a cosaane amut jërut ñuy jëggaani ay ay mbindinaar boo desuwaatee ci wàllu alquran da nga daan na ñun mag ñi mag ñi bi ñu la daan jàngal fii da gis ñu lay indil ay boole wolof sàkka xajada fatabala ñu ne la songu mu sadda ñu ne na naayo laam noon raa yu mel noonu day mel ne mi ngi bëgg réer te moo daan téye alquran te yooyu yëpp ci ndono yi lay doon yoo xamante ne bi yu am salo lay doon kon ñu jaajëfal la waaye ndax sëñ bi yitte ju kawe ji ak euh, gis-gis bu gudd bu gudd bi euh, waajal nga ko ci yim war a àndal ñi nga ko war a àndal euh, ndax loolu wàccaay wow ndax yombut. waaw wàccaay wi moom bu dee ci wàllu xam-xam moom ñi ngi ciy dox bu baax a baax a baax ñi ngi ko seq ñoo xam ne loolu rek mooy seen métier yàgg nañ ko xam yàgg nañ cee dox yàgg nañ cee taalif yàgg ko liggéey. Mhm. ñoo xam ne sax ci daara yu kaw yi la ñuy jàngale ñu ne ci réew mi ak ñu ne bitim réew ak lenn ci bokk yi ndax ndax bu dee ci yoon wi sax ñi ñu gën a ñi ñu gën a ñi ñu gën a jublu ñu gën a wuti mooy ñi nga xam ne ràññiku nañ ci yenn yi nga xam ne masalan euh, boo jëlee lu mel ne Mauritanie euh, dañ cey xam loo xam ne ñëppay nangu ne xam-xam bu sell la nga jël Gabon noonu bu ko defee daal dañuy jël ñi nga xam ne mutaxassisuun la euh, ci ci ci ci ci ci ci ci ci mm, jawaani muxtalifa nga xam ne kenn ku nekk euh, wet gëm féete daal ràññiku na ci bu mm-hmm. ko defee ñooñu daal lañ jiital mm-hmm. muy waa dëkk bi ak waa yoon wi mm-hmm. bu ko defee nag ci bu dee ci li nga xam ne moom la matxaf laaj muy doxinu matxaf nag loolu ñu ngi ciy jëflante ak di ci liggéey ñoo xam ne loola mooy seen ci lañ def taxassus muy ñoo xam ne ñu ngi si réew mi ak ñu bitim réew sori nañ ci lool nag ci liggéey bi waa nag bu dee ñi ko seq moom mooy yoonu murid bépp waaw ndax liggéey bi Sëñ Tuubaa la dañoo jàpp ne xëy na ci xalaat bi ci mën la jógee waaye maa ngi ci yem muy loo xam day dundal turaas bi day dundal day dundal euh, yoon wi di xamle euh, cosaan li ak nam doxee ba ak si fi ñu ak si. Mhm. jërëjëf euh, sëñ Serif ñu amaan ànd ak bokki téléspectateurs yi ci seen émission ëttu ñu ko amale fii ci kër Serigne Serif Fanta Madi ibnu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ci li nga xam ne xalaat bu ràññ ko la bu am solo. tey sàmm ndonal yoon wi eh, mu di ko waajal ndax sëñ Cherif eh, xalaat boobu bi nga ko amee ginnaaw yàlla ci wàllu xam-xam yéen a ngi koy xalaat ñu bari doonoo yaakaar ne musée bi dafa tëdd di nelaw ndax daa tëdd di nelaw waaye daa wala daa nekk ci ay wàccaayam ngir bëgg mën a jóg doxi waaw ay wàccaayam ngir bëgg mën a taxaw ni mu war a taxawee eh, ñu di ci def ay pexe yi nu ñuy fexee ba mën a am ci ginnaaw sax dégg nañ fi ay coow la ko war a loolu itam mooy xëy na ñàkk déggoo ndax am na taalib mbokkum taalib mu fi ñëw ne taalib sëñ Tuubaa la wanee ne dafa am yéene dugal ci loxoom am ñu am ñu ko gisee noo gis na daal loola wërta mën a nekk ndax nangam ak nangam ci lii lay yëngoog fekk na sax man loola ndax ndax ña wax ne waruñu ko taa def ñoom buñ ko ko teree def danañ ko def ñoom waaw loolu it ba tey ab laaj la euh, te itam sëñuñu kenn sëñ Tuubaa laa yaakaar ne dinaa ci def ñu ne ko bul ci def euh, loolu yëpp sax boo gisee li ko li ko indi mooy dañoo sëñuta euh, ndax bu dee ñi nga xam ne ñoom euh, liggéeyu sëñ bii ñu euh, dëgmal te mooy jàngukaay fekkoon nañu ne ci laaj bi ñoo ñoom ñoo ngi koy wéyal sañ nañ ko mën nañ koo ndax fekkoon na leen ci waaye ginnaaw bu laaj bi jibee nag man dama sëñuta laajaat ci biir ni sëñ bi ci biir yoon wi oh, pexe yooyu nag moo indi yooyu yëpp mm-hmm. pexe yi di seet ñoo xam ne xay na buñ ci defutoon duñ def ci yoon wi xëy na te yàlla mën na leen ko mm-hmm. ñuy làmb wet googu ba xam ñoo xam ne xëy na ay taalibe lañ waaye fañ féete boo leen fa fekkul wax wax kook ñoom ba mu leer xëy na duñ ci def te buñ defutoon ci loolu góoma ne dañ def ci ci ci leneen itam loolu rek moo indi moo indi moo indi réeroo googu nga gis yëpp waaye du len dañuy wax ne réeroo kooka du xalaatam bu ko liggéey yoonam néew ci xamut nañ koy defee fekkut fuñ koy defee dane rek mën naa def ñoo ne ko bisimilah moom ma sàmba ak ma dem Thiam képp maa ngi maa ngi fàttaliku bi fi Jimmy Cliff ñëwee te te sëñ Abdou Lahad tuddee ko Bachir Mbacke da nga ñi wax ñu ba ko Naim Bachir Mbacke waaw bi ko bi muy wax ak sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Lahad ko ne demal ba ca katax nga ñëw fi rek làkk woo la xam nga woo dégg nga làkk ko mm. moom dégg na yëpp mm. nga xam ne bi mu jàkkaarloog sëñ Tuubaa ay ay anglais la ko doon làkk waaye dama yaakaar ne wooteb sëñ bi itam moo yaatu ba àgg ci ne koo bëgg a dimbale bul ko ndax sëñ Abdou Lahad waxoon na baat bu am solo nee na woon bu ëllëgee ba yàlla teg nit ñi teg jinne yi teg malaayika yi indi ay PCM saako buñ fa teg ak ku ko mën a duy ca doo sëñ Tuubaa danañ ko wisit te yàlla néewaa na mu wisite sab saako te amut lu mu ci génn xam ba ma xamee ne nag saakub sëñ Tuubaa kenn du ko wisit laa faf sama yëf boole ci bi ak ko bëggee dimbale nga fexe bam liggéeyal sëñ na woon sëñ Isaa Jeen ba du ngeen am taalibe bu ngeen nag mënta liggéeyloo mu ne ko déedéet ko bu ngeen ko amee wàcc ko ndax du mën a jëriñ waaw ndax sama yoon wi kenn mënu cee jëriñu ca liggéeyloo kon yaakaar naa bala ngaa mën a jëriñ nit ki faaw nga fexe ba liggéeyloo ko eh, kon loolu am na solo lool te it dégg naa fi nga waxee ne ginnaaw wooteeg sëñ bil ak laajam jib na amutoo droit yow laaj ci biir yoon wi li ngay mën a def mooy wuti partenariat bu yoo xam ne daañ la mën a jàppale bëgg na maa xam ci wet googu ndax sëriñ baa ngi lay tàmbalee ubbil ay bunt ak bi am na fu ngeen ko waajal ba def ko faak euh, ba am barab baag yooyu ba noppi waaw bu dee ci ci ci ci li li li mata leeral bala ñoo jàll itam mooy ba fii mu ne amut kenn ku ci joxeegun benn dërëm waaw loolu ñu xam ko du lu jëm ci man du lu jëm ci liggéey bi mm-hmm. loolu itam na leer ndax euh, gi dëgg nañ fi yu bëree bëri yoo xam ne demewut noonu ci njort rek lay dox mm-hmm. te euh, bu ci dara duggoon it ñëpp daañ ko xamandoo ndax bi biñ tàmbalee léegi itam niñ ci doxee gun mooy def nañ lu mel ne benn groupe boo xam ne bii ñiñ ko séqal mooy ay coloré mm-hmm. euh, xëy na du ëpp wala ñaar téeméeri xam ne ñii ay wëlëre lañ ñii dañ maa doxale seen digg ak bi mën naa ne liñ ci defagun muy ay téere yu ñuy mool am na ci ne fii ñuy joxe ngir leeral fi ñu ci jëm euh, addiye yooyu ñu dajale woon ci lañ ko defee waaye du laaj boo xam ne dañ koy def muy laaj am boo xam ne day matale ñëpp ndax lii ma la wax léegi ndax buñ ci fekkoon daañ ko sañ waaye nag bi ñuy dugg fekk na sëñ bi laaj te tegaat ab laaj cib laajam loolu sañuñu ko ba tax na kon nun ñi nga xam ne ay xame lan ak i kóllëre ñi nga xam ne na ñu ma ci déggee doy naa leen ñu am seen tuut seen ñaar téeméer ki téeméer loolu ci la ñuy dox bi fi mu ne di seet nag mu ñuy def ay pexe yoo xam ne te du te it pexe it day dëppoo ak ni ko lislaam santaane ak ni ko sëriñ bi bëggee waaye lenn caaxaan soobeel duñ ko ci boole ñu xam ne bu fi may waxee ni ma ko xam ne maa ngi répété waat ba kenn defagu ci dara muy lu jëm ci sama jëmmi bopp wala jëm ci liggéey bi loolu tam ñu xam ko mm-hmm. du kenn nag mm-hmm. macha allah jërëjëf euh, Serigne Serigne Fanta Madi jërëjëf itam mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñun dañu seetaan seen émission ëttu murit ñu amale ko fii ci kër euh, Serigne Serigne Fanta Madi ibnu Cheikh ngir liggéey bu am solo bi nga xam ne ca ay xalaat la toll euh, waaye mu nekk xalaat yoo xamante ni bii bis buñ ko toggee ba mu ñor ba ni jëmmal ko danañ gis ne amal na njariñ lool e, yoonu murit euh, mu mel ne euh, sëñ Serif yaakaar naa ne nag loolu dana yóbbi nag sëriñ bi ci mu jéem a wuti nag ay partenariat yu ko jàppale ngir loolu mën a am ginnaaw laaj. waaw partenariat bi nag moom euh, du tee nag ñu ngi tàllal loxo ñëpp laaj bi daal lañ deful waaye ku ku ku ko xam ne kii itam am na coobarewu na te am lu mu ci mën a def it bu ko ne déedéet partenariat itam ni ma ko waxee day am ay charte day am surut surut charte yi mooy du xaalis yëpp la ñuy nangoo jël. du xaalis yëpp la it fu ñuy duggee daañ xam daanañ ko daañ ko natt ci àndaari asaka dëggal ci àndaari sharia peese ko ci kalambab xaqiqa maanaam day doon lu Sëñ Tuubaa nangu ko mhm. xam naa gone am na ñu loolu mooy lan àndaa rek kalamba waaw ñaar ñaar yooyu dañ te ci te ci musée bi la ci musée bi la ah àndaar loolu laa ne ko ñëpp xam àndaari <laughs> mooy li suñ dëgg la wallaahi la xam loolu laa lañ fas yéene dox incha allah eh, macha allah loolu am na solo lool ndax itam eh, am na ay lettre wala ay carte wala ak compte banque wala yu ngeen ubbi yoo xam ne ku bëggoon a participer ci musée bi dana mën a jaar foofu waaw ay lettre ak i carte defaraguñ ko moom waaye compte banque gi def nañ ko ci kaw lii ma la wax léegi mooy ñoo ñi nga xam ne ay wëlër nañ ak lenn ci bokki taalibe bi am na ñoo xam ne bitim réew lañ am nañ ci réew mi lu mel ne Orange Money am nañ ko boo xam ne tey ku euh, ku ci ku ci ku ci ku ci ku ca bëgg a dugal mën ngaa dugal bi ñuy dox ba ci màggal gi nag dama leen nañ ko tëj ndax waaw ndax la ko waraloon mooy hadaf euh, ba la jiitu màggal moo doon ñu defar maquette maquette boobu nag yàlla dogal bi ñuy bi màggal gi desee fan la àgg ba ñëwul ko suñu Muntaxa mën leen nag ginnaaw tabbi woon nañ aw sas te sas wi bay nañ ko nañ taxawandi ba tabbi weneen nga xam ne boobaag léegi moom doxatu damaa tëj orange money baag lépp teewul nag am na lu fi des ndax am na ñu ci def waaye am na as tuut lu fi des loo xam ne daal mooy mooy suñ fond de caisse bis muñ tobbiwaatee sas nag yëgalaat ko ñooñu ak képp ku ko dégg te tam jubu la nga mën cee def ni ma ko waxee ni ma koy faral di wax itam mooy Euh, euh, marxaf bi itam ni ñu ciy doxee dafa mel ne saxaar la gu déqi kum romb nag te nga rafetlu fi mu jëm te sawar mën ngaa waaxu dab ko yéeg ci waaye képp koo xam ne itam fa mu jëm fañ jëm doyu la wala boo duggee da nga ci indi loo xam ne boo ko teg fañ bëgg mu jëm fa waaye boo nga teel li nga yor xam ne loolu moom jégal jégal nañ la ko du dëpp incha allah <laughs> te ci sëñ Tuubaa rek la jëm de. macha allah. Eh, jërëjëf jërëjëf sëñ Sërif loolu daa mel na leer na lool eh, ci ci boppi doomu aadama yi waaye day mel ne kon eh, compte banque gi waroon nañ ko mën a xam wala bu fekkente ne bii ak Orange Money bi wala ndax danga amagoo amugoo sañ-sañu ubbi ko ca waxataana woon ci ñu ko bokkam leen. ah kay compte bi am na sax. Uh-huh. am na ñaari banque yoo xam sax ubbi nañ fa compte benn bi muy banque atlantique. xam naa incha allah dañ fexe ba jàllale numéro bi. Uh-huh. Euh, ak ak banque bu ñu utarde US bu nekk fii boo xam ne defe naa ñaari agence lañu am benn baa ngi Dakar benn baa ngi Touba ñaari compte yu am nañ ko ndax compte euh, euh, banque atlantique bi mooy ñi fa ñi dugal waaye lu fa dugg it day jaari utarde ndax génn ga la ñuy xalaat buy génn faw am ñaari signature maanaam sama signature ak ku ñëw moo duggee ca Dakar nga xam ne mooy yor mbirum xaalis bi nga xam ne te fi mu ne itam niñ niñ doon liggéey ci wàllu Orange bi itam mooy ndax Orange Money ku ci dugal dañ lay yónnee message message boobu it ñi nekk ci groupe bi ñëpp dañ leen koy daal di yónnee fi nga xam ne bañ njëkk a tàmbali liggéey ba fii mu ne lu ci dugg kenn ku ne ku ci bokk mën ngaa defal sa bopp sa calcul ba dërëm bu nekk fa mu dugg nga xam bala ci benn ñaar téeméeri nit yooyu ñaar ñaar téeméeri nit wala ëpp na ko ñaar téeméeri juróom fukk wala juróom wala ñeent téeméer mën na ko te am na ñoo xam ne ay ñaar téeméer la ñuy dugal ndax kon doole yi tollawul mën naa laa wax ne daal li ci ëpp ci dugal lu mat million nga ëppagul juróomi am na ci ku nekk Angleterre dugal na ci ñaari million am na ci ñaar ñu nekk France ku ci dugal na benn million am na ci ku nekk Amérique dugal na dugal na million barki dem nga xam ne bisu ba bisu bis ba mu tàmbalee ak léegi ku ci bokk ku ne bu la neexee mën ngaa tàmbali def sa calcul wàcce ko ba ci ba ci ba dërëm ba ci mujj li dugg ak li génn boo amee benn centime bu la ci jaaxal nga ne lii fu mu dugg ñu wax la ko noonu la ñuy dox te foofu noonu lañ fa yéene doxee ba faw bu ko defee itam euh, compte orange money li ma wax nit ñi bëgg dem mooy léeg-léeg nit yónnee la loo xam ne da koy jox ngir jëm sëñ Tuubaa waaye dugal naa ci groupe bi ne képp ku ci dugal ku ci yónnee dërëm boo xam ne musée bi ko joxe na nga deer na nga ko teel a leeral te ma ko ma daal koy berfee ndax du sama yëf-jëf sëñ ko jëmal sama yitte daal ci wàllu li ñuy wax transparence daal lu ko gën a leer moom mosuma koo gis ci wax dëgg yàlla ci yoonu murid <laughs> jërëjëf jërëjëf xam naa ñu ngi may signalé li ñuy mayoon ci waxtu euh, euh, jeex na waaye sëñ Salif bëggoon naa fo bala ñuy jeexal foofu comme yàlla dogal na euh, am na ñoo xam ne ñu ngi commencé di dugal musée bi ci turukum ne. musée bi dañoo defar benn euh, association boo xam ne tuddee ko xarnu bi xarnu bi xarnu mooy mooy siècle wala mooy téeméeri at. 2003 laa ko amoon laa ko laa ko defoon bañ noppee ca téeméeri ay ma lay wax ne moom la sëñ Saliou joxoon digal te ñu defoon ko ca Dakar ma ne kon nañ def ak mboo mbootaay goo xam ne dañ ko tuddee xarnu bi muy màggal téeméeri at ya mm-hmm. ba mu am kayit. këyit woowu ci lañ ubbi compte bancaire ñaari compte yëpp ci lañ ko ubbi muy association xarnu bi xarnu bi nag baatu arab la naam xarnu waaye nag bi mu doonee xarnu bi la fàtt yëfi murit foofu ba sëñ mu Ka sax woy na ci ak xasee dugg gudd gudd ñu jàpp ne kon dañ ko approprié wu muy yëfi sëñ Touba léegi dootu xarnu gañ xamoon mooy mooy jamono rek waaw ci ci ci ci prime ma ko mën a jox ci yoonu ci ci ci acception bi ko nga xam ne mooy yoonu mu rek ko jox ma mhm. muy acception bi wax ma fum yees nga xam mhm. daal loolu turu moom ko waaw waaye daal mbooloom sëñ Touba turu xarnu bi la te léppit ci kilifteef ak moomeelu sëñ Muntaxa la bokk moom fi def dara lu ko ëmb. dëgg la day sànni fu mu ne jaar leen fa lañ jaar fu mu ne yem leen fa lañ yem. macha allah eh, jërëjëf eh, kon xam naa dama lay bàyyi rek nga def ay kàddu yu tàggatoo ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. waaw di sant rek di gërëm di wax ne itam bala ñoo agsi foofu ne am na itam loo xam ne ñu ngi koy xalaat mooy ndaje mu mag nag moo xam ne bu soobee yàlla dañ ko def gën cee leeral bu dee ci wàllu ñi séq yoon wi tam muy kilifa yi defar nañ téere yoo xam ne dañ ciy leeral fi ñu jëm xam naa sax du doon lu mat ndax am na ñoo xam ne seex soo xam ne seen tur ñëwu ci wala seen photo xëy na ndax ndax xataayu jamono waaye defar nañ ko ba yóbbu nit kilifa yu bari muy seex si ak njaboot suñ tubaab gi ci boppam matalaguñ nag téere bi sax nekk noonu sa ginnaaw euh, niñ ko defee itam ngir wane ne jëf jëf mooy bi ci suuf ngir wane ne liggéey suñ tubaab la itam mooy euh, euh, wane na ñëpp lu sëñ bi jaboote daal ñëpp ci yem ndax maanaam sëñ Tuubaa moom musée bi ak lim jaboote waaw loolu mooy li nga xam ne mooy mandargaal kii nag ñu ngi ko yaatal ci ci njabootu sëñ Tuubaa gi ngir euh, bëgg leen xaw a xamal fi liggéey bi jëm bari nañu ci jot am na ñoo xam ne jotaguñ te incha allah daañu ci jot bu ko defee loolu daal mooy ci ci ci ci ci tënk mooy fi ñu ci bëgg a jëm nga xam ne Cheikh si noonu la tëddee ak ak bokki sëriñ bi ci boppam itam nag waaw nga xam ne am na ci foo xam sax dañ ko def jëdwal indi fa indi fa cheikh su bëree bëri dafa naan lu mat lu jege téeméer fa te matul matul xam nañ ne matagul waaye nag incha allah lépp dana ñëw am na ci loo xam ne balaa mën a mat eh, kër gi dafa tàmbali waaw waaw gis nga lii njabootu maaram a ngi fekk ak bokki sëriñ bi nag gis nga Cheikh Ibrahima Fati moom Mamor Diarra sëñ Gaawaan sëñ Afe gis nga ko sëñ Cheikh Absa si masab ko topp door a ñëw ci bi ci boppam nag mm-hmm. Mm-hmm. bu ko defee nag kenn ku ne bu noppee da am janaax ni ma ko waxee sëñ Muntaxa mooy mm-hmm. da am barab boo xam ne sa mbir doo nga fay ne Seex si Seex si ak njabootu ku doon gëstu ci tey jii eh, ci kenn ci Seex si boo fa demee rek la nga soxlaa xam ci moom ci dëggam ak sëñ bi macha allah bokk gi noonu nga xam dañuy def benn li ñuy wax arbre généalogique sajaratul aayla boo xam ne yoon wi ni ñu bokkee dañ koy def ci xeetu lu mel ne garab daf koy car séddale ko ngir nit ñi xam bokk gi noonu la demee ci Cheikh Seck sëñ beeg bu ko defee itam loolu tam bu àggee fi mu ne li xalaat mooy kër gu ci nekk xalifa kër ga kër Cheikh Ibra Fall kër Cheikh Moussa kër xalifa moo naan diw mii na ma toogal foofu. nga xam ne yow yaay tànn ka lay toogal ka fay toogal foofu. Hmm. bu dee barkeel yu fa ne it dañ ko wutal bërëb boo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy verre lay doon naam waaye dañ koy blender. Hmm. wutal ko code wala caabi joo xam ne itam kilifa kër ga lañ koy jox. nga xam ne barkeel yi mu am te bañ mu laatu bu ko fa dugalee seen la ci ñëpp di am ba ci man mi waaye kenn du fa mën a egg te joxewul ndigal moom waaw noonu lañ ko xalaati bu ko defee ñi nga xam ne tam ndax ragal nañ ñu bare bëri lañ yor duñ ko nangoo joxe mu féete feneen dañ ko xalaati itam mooy dañuy def ay exposition dañ koy tuddee par kenn ci kilif ci kilifa yi dañ naan juróom benn weer yi eh, maam Thierno ko tuddee yaakaar naa ne lu ne daarum si ci barkal dañu ko jox ba juróom benn weer jaxam loolu laa yaakaar bu jeexee bu leen neexee bàyyi fi ñu sàmba leen bu leen neexee ñu delloo ñu woo kër sëñ ma sàmba woo kër sëñ Gaawaan nga xam ne kon barab bi daal dencukaayu barkeelu yi la dencal ko kooka waaye la koy tëj ak la koy tijji la moo ko yor macha allah jërëjëf jërëjëf loolu leer na ñu yëf toll ci ñoom dëgg la dëgg la ndeysaan du neex a laaj noonu rek dëgg la ndeysaan ndeysaan jërëjëf kon xam naa ñu jox bàyyi la kàddu yu tàggatoo yi kon nag xanaa di la sant di la gërëm rek di sant mboolem équipe bi nga àndal itam euh, di sant tam euh, Lamp Fall ak jëwriñu sëñ Aliou Tundi suñu rôle réew yàgg boo xam ne bokk nañu ay liggéey yu bari ca France boobu ma nga fa di liggéey nu ne fa di sàkku xam-xam yàgg na lool suñu diggante ak mboolem ñu fay liggéey suñu kóllëre di suñuy bokk di lépp di sant di gërëm daal mbooleem bokk yi fi teew itam ak ñi amoon yéene teew ñu ak mboolem ku gis waxtaan wi wala mu teewlu ko ñu ñaanal ñëpp koorug jàmm di ñaan itam euh, nu dajee ngërëmul suñ Tuubaa ak tawfeexam ci lépp suñu yëngoog suñu daal jërëjëf euh, Serigne Serif Fanta Madi jërëjëf itam mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñun dañu seetaan ci seen télévision Lamfal TV ci seen émission bi ñu duppee Ëttu Murid tey jii ñu doon ko amale ci kër Serigne Serif Fanta Madi ngir waxtaane wala leeral ci boppi nit ñi lu jëm ci wàllu musique boobu nga xam ne mi ngi koy waajal yaakaar naa ne fi ne tey jii bari na lu bari loo xam ne kumpa la woon waaye leer na ci boppi doomu aadama it xam nañ fi jëm kon ñu ngi leen di sant di di leen di jaajëfal bu baax a baax suñuy caméraman El Hadji Fallou Silla sëñ Fallou Saw Serigne Samb sëñ euh, Cheikh Samb euh, ñu ngi koy ziar baax a baax di ziare mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal jotaay bi ñëpp di leen ñaanal nag kooruk jàmm gu ànd ak xéwal ak naataange ngërëmul sëriñ Tuubaa yàlla nañ ko yàlla defal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah. بسم باسم الإله يكفيني الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله باسم الإله يكفيني الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا